يا من رجع لشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من غزا رزقي في قولكم فإن الخير عندك أجمعون يا من يا ما في الدليل يسمع أنت المعد لكل ما يتوقع ومن الذي أدعوه وأتي باسمه كان فضلك عن بقين يمنع يا من يرى ما في الدم ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع ومن الذي أدعو وأهتم باسمه كان فضلك عن فقير يمنع يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع ما لي سوى قرع الباب زعيمة قل إن قلت فأي الباب نقرع يا من يرى ما في الدم ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع ما لي سوى قرعي بابك حيلة فضعت قلت أي باب نقرع يا من يرى ما في الدم ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع ما هذه سوى فقر الباب حيلة تتبع أي باب نقرأ يا من يرى ما في الضمير ويسمعه أنت المعد لكل ما يتوقع ما لي سوى بحر إليك لي وسيلة وبالقطع فلئن قلت التقاري إليك بقي أدفع يا من يرى ما في الدمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع حاشا لمن كان تقلد عاسيا الفضل أنزل والبرائم أوسع يا من يرى إنك عالم نتذلل عند بابك ينفعون يا من يا يعمى في التمهيد ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع ومن الذي يدعو باسمه كان فضلك عن فقير يمنع يا من يا يعمى في التمهيد ويسمع كل ما يتوقعون وجعلت معتمدي عليك تيقنا وبسطتك في سائلا نتضرع يا من يرى ما في النبي ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع وبحق من أحببته وبعثته بعد ابتلع وتمن به تشفعوا بحق من أحببته وبعثته وآدم تبع وتمن به يتشفع وبحق من أحببته وبعثته وآدم تبع وتمن به يتشفع وبحق من أحببته وبعثته ولم تدع به يتشفع وبعق من أحببته وبعثته وعدم تدع به يتشفع وبحق من أحببته وبعثته وأجبت تدع من به يتشفع اجعل لنا من كل ضيق مخرجا والطف بنا يا من إليه المرجع اجعل لنا من كل ضيق مخرجا والتف بنا يا من إليه المرجع ثم الصلاة على النبي وآله خير الخلائق شافع ومشفع ثم الصلاة على النبي وآله خير الخلائق شافع ومشفع مضرب الصبا والكف ما ضربت صلوا على ذكر ما خادما من عين الولاء شافع عن ذلك والكف ما ضربت والكف ما ضربت خبزا ولا خربت عام من عين الولاء فرحة غرنا والكف ما ضربت خبزا ولا ذكر ما خالد العام لدعين الولد ابن والكف ما ضربت لنا وتقي مسيرتي فهب لنا اقتداء يا نياتي وصليا يا إله بوجزيا أبدا عنا محمد محمدنا مختار في القيام tabaarakallaa ñu fekkewaat ren di nuyu bu baax mbokk jullit yi fi ci baatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu di jiital si nuyoo suñu sëriñ suñu kilifa sëriñ Abdou Aziz Sy ibnu sëriñ si ahmed si ibnu sëriñ babacar si radiallahu taala anhu sëriñ abdou ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ñu ngi lay ñaanal yàlla itam di fa tabaarakallah sant yàlla bi ñu boole ak yow te mu tegu ci ndigalu kilifa yi fa tabaarakallah sa baay bu tedd ba sëriñ Sid Ahmed si fa tabaarakallah suñu baay bu tedd ba baay xalifa bajaan radiallahu taala anhu ñu jël daayira bi dénk la ko ñu jëlaat lépp delloo ko ci sa loxo ni ko bàyyi Abdou Aziz Mbaye waxee léegi rek moo ci am lii biñ koy sos dañoo ñëw ba sa bureau walla boog sa salle ñu ne la sa daayira ngi nii ñëw di waajal bés ci mois de juillet bi lépp a ngi ci sa loxo noo ko doxee la rek noonu la sëñ عبد Aziz مباي نك lañ bëgg مو ñëw taxawee كو سو fekkee امنا تي ci programme بو تي bu ci amul programme كو كو ku ko نيو ان شاء الله allah nga doxalee ni nga doxalee ak sëñ Abdou Aziz Mbaye mu mel ni ñun bu ñu demone def def démarche bi dem gisi seigne Abdou Aziz Mbaye programme boobu mu am ca New York kenn du ko ko tere ñun danoo ko def ndax nag moom mooy suñu sëriñ waaye moom yow yaay sëriñam loolu moo tax ñu ne am kilifa rekk moo wóor looloo tax sëriñ bi ñu ngi lay ñaanal nga yàgg fi te wér yàlla gën laa dooleel tabaarakallah xam nga cofeel bi daayiratul abraar am ci yow fa tabaarakallaa yàlla na yàlla téel ñu ko bi jaahi nabil Moustapha alayhi salaatu wa ñu ngi nuyu bu baax fa tabaarakallaa délégation bi nga àndal ah fédération al muhtadin bi nga xam ne moo regroupé lépp luy njabootu suñu maam Sid Ahmed si radiyallahu taala anhu te sëñ Abdoulaye Camara suñu xarit fa di président bi. ànd kook ñoom Abdou Razak nga xam ne lu xew ca kër ga ñoom ñoo koy taxawee ñu ngi leen di ziar bu baax te di leen gërëm fa tabaarakallah ñu may ñu rek guddi na ba pare presque quatre heures jot na te ci carte invitation yi dañoo waxoon ne sëñ Abdou Aziz mbay moo koy jàng waaye ànd kook suñu yaay Walimata Diop fa tabaarakallah uh, uuf njaboot gi ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di gërëm mbooleem njabootu bàyyi xalifa Badiane bi radiyallahu taala anhu di nuyu bu baax suñu yaay Kumba Fall mu yóbbaale mbooleem suñu yaay yi ci daay daayira bi fa tabarakallah di nuyu bu baax suñu waayjur yi nga xam ne bàyyi Khalifa radiyallahu taala anhu jël bés bi jagleel leen ko muy njabootu suñu maam Serigne Jabel Ka Euh, fa tabaarakallaa tey ñi fi teew suñu tonton Kabir nekk ci bopp bi jiite ko ànd ak rakam ju tedd sëñ Ibrahima Ka Baye moom itam ak mbooleem njaboot gi mu àndal yépp rek dañoo bañ a lim di duguddal waaye ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla yàggal seen taxawaay ñoom la góor gi jël bés bi dara jàllee leen ko waaye nag teg ci na suñu yaay yi bopp yaay ami mata amin aminata ñaan fa tabaarakallah mu yàgg ak bàyyi xalifa lool lool di kóllëreem toog nii jiitu ci tànt bi ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla gërëm ko yàlla guddal fanam yokk ko wér ah, di nuyu bu baax suñu suñu sëriñ yi toog te ñu mun ci jiital sëriñ xalifa Ababacar si di taaw ci góor gi di ko ziyaar bu baax a baax di rafetlu taxawaay bi fa tabaarakallaa yal na yàlla yàggal dend ak sa rakk ñu tedd ji di bàyyi abd Aziz alhamdulilahi rabil alamin moom xam na cofeel giñ ko ëmbal xam na ko ñun lu ñuy def moom rek lañ ci bëgg a gis buñ sañoon sax daayira mu ngi koy ñëw fa bàyyi abdu yàlla na yàlla yàggal sa taxawaay yal na yàlla gën laa dëgëral gën laa jàppale ak mbooleem njaboot gi nga àndal leen ziar bu baax fa tabarakallah di rafetlu it taxawaay bi yal na yàlla barkeel te ànd bi yàlla gën koo dëgër jaaxi nabi Mustafa alayhi salaatu wasalaam di nuyu mbooreem waa daayiratu abraar di leen jaajëfal bu baax a baax ci taxawaay bi lii bu sottee rekk yenn waa daayira bi yéen tax mu sotti fa tabaarakallah mun nañ ci wax ay anecdote yu bari yoo xam ne nii gàmm gi ëmb na ko waaye nag temps bi duñu ko may waaye ñu ngi leen di gërëm bu baax te di leen sant bés dama aye daayira bàyyi xalifa bajaan radiallahu taala mu toog ma ne ko sëriñ bi yàlla boo dee yàlla boo dee loolu laa ko loolu laa ko ñaanal keroog sëñ Idrissa Njaay na ma waaye mais firil ñu li nga wax ma ne ko li mu téye téel ko mag ñi yàlla bu mu nax saay ci ginnaaw te tànk nax saayul rek moom mu ngi dund te li koy confirmer tey li tax nax saayut mooy daayiratu abraar ñu ngi nii toog ñu ngi leen di gërëm bu baax ànd kook njabootu Baay Xalifa gi nag góor ak jigéen mag ak ndaw fa tabaarakallaa ndax nag ñoom bu ñu yaatalul woon waa daayira bi waa daayira bi duñ mën a taxaw ba def lii kon njaboot gi ñoo yaatal waa daayira bi mën a tafal lii kon nag ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant ah xanaa ñu jox maam soose mu dugg ci gàmm gi bu ci kanamee bu daanalee rek fa tabaarakallaa ñu am yeneen nuyoo yu ñu indi rek dafa mel ni ñëpp moom la ñuy bëgg a déglu kon maam soose nga jóg nit ñi ah, fa tabarakallah waxtu bi di gën dem tatibbu bi zikrihi aw wal wa tartafiu bihi wal ويتنافس فيه أولو الألباب والأفهام والصلاة والسلام على منبع المعارف والحكم ومصدر العطايا والنعم القائل فيما ساء أنهم مناديا ذوي الهمم إن لربكم في أيام ظهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها عسى أن تلحقكم نفحة لا تشقون بعدها أبدا سيدنا محمد أمين المكين خائد القر المعاجلين وعلى آله وأسابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم رضي الله تعالى عن القطب الأبر زي سيتي شامق الأشهر قطب المكتوم غوص سمداني تاج العارفين ممد كل أولياء رحمن الشمس البازقة في أفق المكونات لاستنارة كل زلام أحمد دقن محمد التجاني ثم رضي الله على من لا يعرف فضله إلى نجله شيخ الخليفة رضي الله تعالى عنه حيث أشار إليه قائلا ويس الإمام من الإمام بكل ما أمر الإمام من الإمام الأصدق ذاك هو شيخ سيد الحاج مالك l'homme du ville sans soleil. Je veux dire tu vois. L'auteur du livre, Le Khilazafi Sirati Arab, les lecteurs de ce livre trouveront que la vie de Mohamed était une vie humaine qui avait atteint un degré de sublimité jamais connu par un homme. Mohammed était un homme à suivre même avant sa révélation. Il était l'exemple de l'homme doté des plus nobles qualités et moralités au point qu'il fut surnommé le fidèle Al-Amin Mohammed était sincère et honnête. Après la révélation, il donna de l'exemple de l'homme qui se sacrifie dans le sentier du Seigneur et de la vérité qu'Allah lui révéla. We cannot progress without values. Today, the world needs solution. The spiritual and logical solution is Muhammad Jahai, the top, the choice of God, the leader of the Muslim, the leader of all humanity by Fatima bint Ruqayya Umm Kulsum. Assalamu alaikum. Uh, ah, yàlla yàlla nangu gàmmu ñu jël sunu nuyoo jiital ko ci Serigne Abdoul Aziz bii nga xam ne moo fi toggal Sidaaj Mali ndax bu ne Serigne Abdoul Aziz ne Sidi Ahmed ñëw directement ci Serigne kër si ñëw ci Cheikh Sidi El moo tax sànq ba kabbu waxee ma ne ko na ñaan rek nan ko jaarale fi ko daan jaarale ndax mosuma yëkkati kàddu te ñaanu kon nag lu temps bi dem dem ñaanam xaj na ci te ñaanam dama jàpp ne barke rek lay indi ci tànt bi ñun nag suñu wax buñ ci amoon cinq minutes sax doy na waaye ñaanam moom farata piir la ndax mooy mooy kilifa jataay bi mu nekk nag ku modeste koo xam ne boo ko xoolee rek dinga xam ne yaru kese la kilifa gu yaru la loolu la ko yàlla defal ataala laahu umruhu wa ayadahu wa nasra yàlla na ko yàlla dimbali yàlla na ko kat yàlla yàlla na ko yàlla kattanal euh, di nuyu njabootu Baay Xalifa bi yëpp nag zukkuran wi inaasan di ci jiital sunu yaay yu baax yi soxna sunu yaay abi njaay moom sama xarit la gis naa yàq beeg yëpp lépp ñëw na euh, waxuma sax cadre sama diggante bu moo tax may wax waaye moom sama wóllëre lu mu sa doon suñu yaay addi bi mu bu baax mus ma sopp nag ma mus ko soppal sama bopp loolu yàgg na ay relation la yu dat ay années yu yàgg yàlla na yàlla gën a guddal fanam mën nañ wax ci moom lu bëri waaye temps bi rek moo dem ñu nuyu sunu yaay Oulimata Diop borom Màkka ah, keroog la ma ko wax ne ko delloo ko màkka mu ne ma demaguma mu ne ko di nga delluwaat moom ku bëgg màkka la yàlla nga fa yàgg a dem ah sunu yaay Kumba Fall ñu koy nuyu bu baax di ko jox wàcc waayam sunu yaay acca jaan gisuñu ko waaye xam na ne xel bi mu ngi ci tànt bi ndax léppam abraat la bu ñëwul rek wóor na ma ne ngànte ko té wala njabootam ñu ngi fii waaw ñu ngi nële ca ginnaaw tabaarakallaahu nuyu leen ma ko ngeen jotalal ma ko nuyoo ah waaw waaw magee rek looloo ko tee xam na loolu eh, ngeen baal nu ñu nuyu tamit xadifaal bii toog sëtu sëriñ Babacar Si la moom it di taawu Chérif Abdourahman Fall Tilala nekk nit ku baax nekk nit ku oyof daaw ma ngi fi woon kon Fall ñu ngi lay jox sa wàccuwaay gis na ni nga soppee it sëriñ Babacar Sy waaye li ma ci moom mooy fam batante la foo ko gis day liggéey di daan dooleem kon yàlla yàlla gën a barkeel soxnaa si maa ngi lay nuyu jox sa soxna Asi mayuma ko première njëkke ndax lu mu sant si déedéet danoo am ay relation yow xam nga ne sama programme yu bëri da ciy teew beneen bi it mooy danoo séq daal lu bëri relation yoo xam ne dan ko am yu dëgër lu muy dugg dinaa ko yéeg ba pare muy sama nitu bopp nit nag bu la soppee teraanga teraanga rek moo koy fay ndax damay wax ne njabootu Sida ji Mali xaw ma ñan de waaye ñu baax la nu keroog dama toog rek soxna Faat si bu Alaaji Abdul Aziz ma ma ne waaw kookan la mu ne maa xamatoo ma yow yaa bàyyi sa mag ma ne ko rus naa de ma neexalee ko sax gàmmu gi ne ko dinaa la ci invité waaye mujj ma ko ca woo sax ndax xam naa ne programme jamalay jàmmalaay yoyu mané jarul mako ci invité yàlla xam nako ñom non la nu mel parce que yàlla mo nu bolé ci mbokk d'abord ngir di sosé Njaay borom doxo ba loolu yàlla def muy nijaayu alaaji Abdul Aziz ku ne xam na ne allah jabd musul sàllalu mam sosé nijaay la ko mus wax lolu la ñom Serigne Maodo di doxal mom la Serigne mbay Sy di doxal mom la wati Tiwaawoon di doxal bi ila yawmin al haza koo ci dajeel da gis cër jox ngir alaaji Socé Ndiaye loolu bëri na parce que dajee nan ak ñoom ci tànt yu bëri ñu doxal loolu ngir jëmee alaaji Socé Ndiaye kon si yàlla na yàlla gën a yokk sa cër ci barke yonent bi ngeen baal ma mën nuyu tamit xalifa bi nga xam ne mooy taawu bàyyi xalifa ñu ngi koy nuyu di ko jox wàccuwaayam di xalifa ñu lay ñaanal bu nu sañoon xam nga temps rek moo dem foog ngeen comprendre ma ndax mënu ma ñëw rek gàmm foog ma nuyoo euh, mam as ñu lay nuyu di ñaan yàlla mi am ndimbal yàlla na la yàlla dimbal yàlla na la yàlla kattanal yàlla na la yàlla suturaal sunu ko nuyoo nuyu ñoom Mansour ñoom Jamil tabaarakallaahu Abdul Aziz euh, ba ci ñoom nday bajaan ak daal ñëpp daal nuyu nañ ñëpp waa abraar ak ñi dëkk ci koñ bi ñépp daal nuyu nañ leen waaw ah, ñëpp rek nuyu nañ leen tabaarakallah ah di nuyu tamit Kabir bii toog dafa wax ne ma boo jëlee micro nanga ma santal mboolem ku ñëw ci dëju Seydina usmaan bi nga xam ne moo doon xalifa alxaaji Jabel Ka ah manqué na tànt bi de ndeysaan bu ma xoolee tànt abraar bi sama yaram day daw mooy xool nag euh, sunu papa Jibril Abdul Aziz Badiane fii la daan toog Ahmad Saloum Boy ndeysaan bu jëlee micro bi ne Socé le grand conférencier ndeysaan ku ma daan marqué la ndeysaan ku ku ku mënoon protocole tey Ahmad Saloum Boy nekk tu fi officiel bi ñu fi daan toog presque ñëpp nekkatul ah kon yéen it yàlla na ngeen fi yàgg waaw ah, nee na daal ma ngi leen di sant di leen gërëm ñoom ñu baax lan ndax gàmmu gi dañ ci ànd ak Baye xalifa jamono bu nekk tabaarakallaahu yàlla na yàlla defal leen jàmm yokkal leen seen sutura euh, Mansour Niang dafa dem waa ñu ngi koy nuyu ngeen jotoon nu nuyoo moom it ñu koy jox wàccuwaayam ah Euh, ngeen baal nu nuyu Abdoul Aziz mbaay sànq ba may ñëw dama ko tàllal loxo rek jàll dama ko wax sànq ni ko damay bañ dox sa yoon ci yàlla Muhammad sa ko man xam naa ne ci xaal ngay dox te comme ci xaal ngay dox di wëy yonent bi duma fi nekkante di la nuyu ñi ma mën a nuyu moom tañ ma xam ne ñoom ma sol nga xam ne ñoom dinañ ma gis ndax ñoom seen xaal xë ah déet déet ma saw mën naa am sax dem na waaye yow dangay ngay ni fii ne fële waaye kii moom day dem comme day dem nag man duma fekk kenn kuy dem ma ni la nuyu du ma ci fekkante man kañ dama lay bàyyi ba nga ñëw ma wax ak yaw moo tax sànq ma nuyu ko ndeysaan ku baax la mu reetaan ma ne ko dama doon bañ dox sa digganteeg ak yonent bi mu nangul ma ko nag la ma waxoon ci yow rek bu nu waxul woon ni am nga cër lenn dong waroon na tax nit ñi bàyyi ci xel mooy Alaaji Abdul Aziz Alaaji Abdu ku mu tànn teg ko ci wetam nga di ko wëyal mu naan ana abdu yëkkatil ma nangam xasida bu mu bind ne la jàng ko nga jàng ko wuy ci kanamu alaaji Abdul Aziz des années nga di ko def kooku ku jàpp ne amuloo doo mbir ku am tuuti xel war ngaa xam ne borom mbir loolu moom yàlla defal na ko defal na ko tamit nit ñi sopp ko ngir jëmmi yonent moo tax nu mu wëyee rek mu neex moom rek moo mën a wëy dagg air bi waxtaanaat yëkkatiwaat air bi ñu déglu ko keneen ku ko defoon mbooloo mi bàyyi na fi masaw mii bu ko jéemoon tant ba fa lay yem euh, kon nag Abdou yàlla na yàlla gën a guddal sa fan damay wax ne yow ak duut kenn yéen ay icône yu mag ngeen ci tariqa bi kon nag yàlla yàlla suturaal leen kàttanal leen guddal safan fan laata muy dugg ci gamu gi ngeen mu munu mu dugg ci gamu gi ta waxuma ci jëm ah ngeen bal ma ma ngi joom nak ndax sama ñaari kilifa yi ni abdul Aziz ndjay munu ma gamu ta duma wax ci ñoom luma am man ci sen barke mam la ko amé ndax man tibbiwu fenn ku dul kër alaaji sosé na leer jéggaaniwu ma dara lu ma amit sama kër maam laa ko amee seen papa kenn du moom ci baax seen papa kenn du moom ci wilaaya seen papa kenn du ci kenn du ci moom ci dara ndax dama koo fréquenté dama koo fréquenté di ko zikaral taala bu nu ndékkee ba pare ñu yéeg ci kaw oto bi topp ko dem ba Linguère def naa ko des mois des mois et des ba muy mujj gisanteeg moom ci hôpital sa sa waajur kenn xamul la la xamoo ne tàgge na ma sama waajur te fekk génn gu làdduma mu yëkkati xaalis jox ma ne ma demal fekk sa papa ca hôpital ndax yàlla xamal ne ma day génn àdduna ndax looloo tax ma ñëw fii kooku du com keroog ba may ñëw di ko annoncé daf ne ma dem nga de ma ne waaw mu ne ma mënul woon ñàkk ndax mooy sama présence ci Dakar euh, kokan la ah waaw waaw waaw Cheikh Cheikh maa lay nuyu lu mu ne ma lu lum la fi bàyyi mu ne ko lii ak lii mu ñëw tëjoog man ci néeg ni ma lii mooy lii lii mooy lii lii mooy lii lii lii nii nii moo tax maa am kaye boo xam ne sa papa ci bind ak sama papa mu dëxëñ ma ni ma téye ko loo ci def yàlla suturaal la ah moo taxit maa ngi ay bomb de geeree rek ma génnee bomb yi ah, Euh, loolu nag boo leen toogee fii ma waxta nuyu ma leen nuyu ma leen rek risque la ci man te taala damay wax ne ku am dara fii ci kër bàyyi xalifa war nga ko sante goro ngi nii de ku sopp bàyyi xalifaa ngi nii ku ko defal lu ko kenn deful ba yu fi métti moo fi newoon mësul wax ci bàyyi xalifa safaan dafa daan soose dem leen rek ngeen téye góor gi ba tey rek gis nga ko mu ngi toog rek ci toogaayam bu jekk bi ci yar bi ak dal bi xëccoowul wanewul daraja te fees del yàlla yàlla gën a guddal sa fan Abdoul Aziz yàlla yàlla guddal sa fan Abdou mi waxuma la bokk bi bokk mais ku tabe la man da dina ma ñawal yére boo xam ne lim ci finance day ëpp deux cent mille góor lépp mooma góor gu am ngor ngi nii góor gu tabee ngi nii góor gu amul moroom ngi nii dama bind ñaari bayit ba may ñëw ci yoon wi barkeeloo ko def naa nag ay xasida yu bëri ah, waaye bii nag ah, nut fa laa def xam nga mufradan yatiman bokkul ak abib nut fa nut fa bokkul ak qita qita bokkulul xasida bëri na ku naan damaa bind xasida bindoo xasida benn bayit mooy mufradan yatiman ñaari bayit mooy nutfatan soo jëlee ñett ba siis mooy qitaa soo jëlee nag diggante set jëm kaw mooy qasida ابن خليل رحمة الله عليه شبابه ميل الورى للشبوي فقام إمامه يسأل الحرم يسأل رب البيت من فيد الكرم فزاد وإلم العرب فانتشر بين الورى فأقبل لؤ البشر مدف نياري بيت dama ne ajabat nii yéem na ma ñu ne kan moo ma yéem ma ne bàyyi xalifa ma yéem def jikko bàyyi xalifa moomu yéem waaw kay mamaas mamaas nee na def na ko àddiya bàyyi xalifa ba jàng lan moo tax mu ne ma ne ko wëhwël waarisul kaamilu maanaam bàyyi xalifa moo donnu ajimat bi kan mooy ajimat bi mooy bàyyi Cheikh ak Mansour doomu yaay yaay Roqe Njaay borom bone kaare baat sàqare yàlla ba bàyyi xalifa moo donnu Cheikh xalifa dëgg la woon dëgg ah kàggu maa ngi ñëw ci yow de yow chaque jour ci yow lay mujjee ah lay ndeysaan Njaay yow de yaa maa la waroon jox de yàlla xam na ko xam naa ne daal ndeysaan waaw ma ne wahuwal waarisu waxuma wë wë wahuwa de wë wë daruratu shaar ya du wahuwa de wë wë kaamil dafa doonnu sëriñ Babacar ñu ne ci lan la fa doonnu ma ne dafa doon sëriñ Babacar fil ilmi ci xam-xam jërëjëf nga ya ci xam-xam la ko donn Baye Khalifa ku yàlla mayoon xam-xam la xam nga yàgg ma koy wax na ma nit ñu bari dañ ko réere waaye li mu amoon ci baatin néew na ku am moom rek nga daan ñëw mu ne la téyal sa xaalis ñaareel bi ci Abdoul Aziz mii laa koy gis nga indi sa million bàyyi xalifa ne la jëlal xaalis bi nga jox ko nga nga nga nga nga nga nga nga ñu am kun ko dénk mu téye ko bu sa soxla fajoo nga fay ma su sa soxla fajoo nga jël si sa xaalis sëriñ su ko ñemee bariwul de gars yi boo leen waxee ñu ne non foofu ñu génnee sarax yi ah. waaye sarax yi waaye sarax yi foog mu génn kon fil ilmi ku bëri woon xam-xam la yàllaa ko ko defaloon waaye tamit wël bës li ma ne ku tabe la woon ku mënoon joxe la moom Baye Khalifa am déet tabee ngi yem ñu jox la oto nga ne oto bi su ma boroom xamoon da koy def million quinze millions yëm ko jëndee bu ko defoon xaalis mu jëndee ko biir yóbbu ñëpp ziyaare Cheikhuna Ahmada Tijaani ñaat nit la bàyyi khalifa yóbbu maram abrar bi mo doon daire bo xamne bo boo sax daire da ngay am enveloppe ya ko def ci bàyyi khalifa Abdul Aziz wal bés bi waaw lay ndeysaan lay mati waa jugal xamna mom moom dafa ñemewul mbolo rek lay ndeysaan ku bëgg bàyyi xalifa la moom it wël bësi ku tabe woon na maa ngi fàttali ko ba nu demee Maroc xam nga moom dafa xër mu ne nan génnee siyaare sërif yi fekk ñun presque banque nan dee nan rek yoreetum xaalis mu génne keroog dafa mer parce que def ne nun la sëtu Cheikhu Tidiane di ñëw ñu fay joxe yenn dirham yi da ngeen waroon loo leen am yëpp ngeen jox ko sëtu Seydina Cheikh yi keroog Cheikh Jàllang fa woon laaj ko ñun ñëpp ruus lu mu am yëpp daf koo génn jox ko njabootu Cheikhuna Ahmada Tidiane kooku moo tabe wal bës bi beneen bi wal xidmati ku daan liggéeyal tarixa bi la sans intérêt ah un ba vingt-six moo tax mu ne yawmal arubati jaani nahyul atal قد غاد بهر الوفا والقدمة قل ها وفب فب فب فب لا دان دم واه مانا نك أه، بس باغا خامي ني نيونا ني تاغي ماني ما غور جي ген ген نا ادنا مانا ديدت генول ادنا دي داغا نان خاد خادا نيسنا لان مو نيس بهر الوفا وخال نيك géej gi nga xam ne mooy matal kóllëre moo dem waaye xalifa ku mënoon matal kóllëre la dafa am kóllëre man jox na ma gàmmu bi bennaane ma yable ci am na ñu bari ñu jàppoon ne sax dootuma ko gàmmuwaat caane boobu mais daf ne soose maa ko jox gàmm gi mu am ngant dama koy woowaat joxaat ko gàmmu gi xam ne kooku ko am ko la bu doon keneen danaa naa kilifa gu doy ne man te ngant ba ma taro taxoon dem moom xam na ko man xam naa ko mais nangul na ma ko waaye wal wafaa ku mën a matal ko la gis nga bu la téewee du la bàyyi ba ilaa yawmil xiyaam xanaa yow yaay dem ba biir nga dugal sa yëfi bopp gis nga ko mu am problème benn problème dong moo dox sa digganteeg moom mooy Cheikh Al loo mën a am ak loo mën a doon su xamee ne soppuloo Serigne Babacar si pare na ci yow boolewul woon dara ak Khalifa loolu ñëpp xam na ko kuy jubóog moom yaa ngi jubóog moom ci Cheikh. ci Cheikh Al Khalifa ku muy am problème mi ngi am ak yow ci problème mu Serigne Babacar Sy ndax li ko sëriñ Serigne Babacar si defal nag néew na nag kum ko defal ndax foto bii bu mel nii Serigne Babacar Sy jël jël jël jël loxoom nuyoon teeg moom te ba mu koy def Serigne Cheikh a nga fa Serigne Mansour a nga fa. Alaaji Abdoul Aziz Sy moo ko fekk ca ca ca. ca toolu sëñ Babacar yooyu ñu naan jàmm gën Baye Khalifa di fa seeti Serigne Mansour si borom daara yi Alhaji Abdoul Aziz mu baax mi ne ko si ku la fekk tiwaawoon sa taalibe la mais ku la fekk ci toolu jàmm gën gi nag kooku nag sa soppe la Alhaji doo baax jërëjëf ku la fekk ci toolu jàmm gën ni sa soppe la sëriñ Mansour ne ko bàyyi doguma la dafa am lu la bëgg nettali mu ne ko xalifa bajaan bii ba mu nekkee ndaw dafa ñëw ñu gis ko photographe bi ñëw Serigne Babacar si ne na ko photo ak moom moo tax photo bu mel nii bu Serigne Babacar nii nii téela téela nii nii yombul de yombul de bii moom montage sax moom ndeysaan gis nga ci bëgg sëñ Babacar daan na wax ne gis nga ni mu jëlee baaraamam bi dóor ko ci sama baaraam bi xamoon na ne montage dina ñëw ndeysaan waaw loolu la daan waxee de waaw nag xamoon moom nee na ñu dem bay ñëw bëgg a bokk ci photo bi mu def leen nii ne bu kenn ñëw ñu def foto bi ba pare Serigne Mansour nettali ne ban ko laajee Cheikh xalifa Khalifa daf ne yowmal qiyaam lu ma fa am te naruma koo bokk ak xale bii bëgguma ko sëñ Babacar am kóllëre boo ko téewe moo tax yamiinu ko laa ansa yamiinu ko daa iman gis nga boo nee na sëñ Babacar bu la téye loxo rek day dem ak yow bi ilaa yawmil xiyaam moo tax ma ne bàyyi xalifa ku mënoon matal kóllëre la kon waxal ne kooku mu génn àdduna kon nag yàlla na ko yàlla xaree ajana yàlla yokk ay leeram ñu dem ci Seyduna Muhammad jigéen ñii nag fi may déparé sama gàmmu mooy lu baax ci islaam ñii la Habib xamoo ne bu dul woon waa Medinatu Munawar kon ñu perte Moustapha du ñëw Makka aha maa la ko wax de bu woon waa Medina te jamono boobu mu ngi tudd Tayba ma ne kon ñu perte Moustapha li lay wan nag ne la kenn du Seex Seydil Xaaji Malick ci miim réew ak fudul fii mooy doon ko laaj ne ko histoire boobu noonu nan la deme parce que bul fàttale ne am na góor bu ñuy wax Abdul Muttalib di ko ko dàkkantelee mais tur wa Shaybat alhamdulillah moom la ñuy dàkkantelee Alaaji Abdul Aziz borom bi jaaw bu rafet bi comme bi jaaw Abdul Aziz Mbaye bi bi jaaw bu rafet bi <laughs> ndeysaan te Shaybat alhamdi moo tax kenn du yontu yàlla Muhammad شيبة الحمد لله تخ ني تودي كوكو موي عبد المطلب دا فا جود رك نيوالي كراو نيوالي اك بيجاو ندخ لير مصطفى مو ونديلو سي كراو كي مو بيجاو كان دي يونت في ها بابا ميغي تودو هاشم هاشم دا فا موسى دم دك بوب ني نان تايبا دي مدينه تمنار جيس فا جيغين بو رافيت jigéen ji mi ngi tudd Salma ku naan Zayid moo ko jur Zayid mi ngi bokk ci banu Najaar Hachim di ko xool ne xale bii day bëgg naa ko soxna ñu ne ko ñu ëpp alal jéem nañ ci te mënuñ koo jot xanaa nga jéem a dem wax ak waajuram mu dem leeru Moustapha reflété ñu may ko ndaw si mu ëmb Cheybatal Hamdi lu yàgg Medinatu Munawwar te ay baayam ñu ngi màkkatal mukarama te Cheyba bu delluwul màkkatal mukara Abdallah du ñëw ba Moustapha di ñëw kon lan mooy protocole bi ko jëlee Medina yóbbu ko màkkatal mukarama ñu laat nag bàyyi Serigne Babacar ak El Hadj Abdoul Aziz Cheikh Sidil Hadji mi nga xam ne moom la laaj na ko nan la demee mu indi benn bayit boo xam ne moom sax wëyu ko waaye Abdul Muttalib moo ko wëy yaa tuula laylii li ah di ahzaani wa ashqaali hal min rasuli ila najaari ahwaali bani udayi wa dinaari wa maazinihi wa maaziniha wa maliki ismata xayraani an xaali qad kuntu fihim wa ma axsa zalaamata zi zulmin azizan منيعا نائم البالي أترتحلت إلى خومي وأوضعني متليبي عامي بترحالي فغاب متليبي في قئر مظلمة ثم انبرى نوفل يعدو على المال لما رأى رجلا خابت أمومته وخاب أحواله عنه بلا والي فاستنفروه وامنعوا ديم ابن أختكم لا تغزلوه فما أنتم بغزالي deng bobu boobu bayit xam nga kan moko ko wëy maamu Seydina Muhammad moko ko moo ko nettali li li ahzani wa ashqali moy li abdul Aziz Mbaye don wax ku muñul do dem Abdul Muttalib mi ngi tuddu Shaybat alhamdi mi ngi juddo Medinatu Munawar liko indi nak mu dem màkkatal mukarrama dafa am ku ko romb muy beuri mais ku mu bëri rek moo lay daaneel mu ne ah romb naa xale bu bëri jom dama jàpp ne ci Quraysh la ba inni marartu bi dawri bani xaylata fa raaytu xulaaman yaatasi ila axika wa maa yanbagi taraka mislu o fil garaba loolu la ko wax romb naa ci Madinatu Munawwara xale bu nduróog yéen dama jàpp ne doomu Hachim la dem leen ngeen jël ko ngeen yóbbu ko Makkatal mu Mukarrama ci lan demee wax ak Salma ne ko ñun ñu ngi tudd Muttalib ñoo bokk ak Hachim Hachim nag comme dafa génnoon àdduna mu ne ko xale bii man maa bokk ak moom ndey ak bàyyi man ak papaam mu bëgg nag nga bàyyi ko ñu yóbbu ko màkkatal mu karama mu jël ndono waajuram yaayam ci gàttal d'accord loolu jël xale bi jël leen jox leen ko ko ban leen ko joxee nag ba ñu yóbbu ko màkkatal mu karama ñuy dugg mu xam ne bu ne kii doomu Hachim la mën na jur ñu rey ko ci la waxe ne kun abdal muttalib ne ko suñ la laajee yow yaay kan bul wax ne may sheybatal hamdi dañ xam nga looy wax kun na wax ne abdal muttalib man jaamu muttalib laa moo tax Maodo ne wa abdul muttalib bul wéy min baadu marra ilaa fataati zurata zaatil majdi wal karam yi kon abdul muttalib kinaaya la ñu indi ko nag makkatal mukarama waaye lu yéeme mooy dafa am lu wuykat bi wax daf ne Habib hala taxasta ila rasuli sabila hala taxasta ila rasuli sabila ku sopp yonent bi yëkkatil sa ñu màggal bàyyi fatimatu bintu roqaya umu kalsoom loo wax habib hal taxata ila rasul sabila woykat bi nee na ndax jël nga yoon seetu sayduna muhammad gaawal ñu dem nee na ku bëgg am sécurité wala bëgg nga am garanti jëlee ko ci yonent yàlla muhammad nee na yonent baa nga tëdd Medinatu Munawwar di fa reflété nee na boo ñëwee ba ci frontière ba yaa ngi jàkkaarloog bàyyi Fatimatu bint Roqaya ak Umu Kalsoom baladun bihi mooy mooy mooy fa nga xam ne baxaru shariati géejug sharia fa leen ko dëxëñ amal masid ansaar la nee na matale na ci suuf si yëpp gaawal ñu dem. nee na mooy fa nga xam ne. nee na jëmmi yonent bi nga foofu. bëri na lu ko fa Jibril fekk te loo loo teg. nee na mooy dëkk ba nga xam ne. xoola Shamsu nubuwwati jant nubuwwa ashraqat mi ngi tàkkee Madinatu Munawwara nee na jant bi day suux waaye jant Moustapha du suux ba ilaa yawmil qiyaam nee na waa Makka xamun darajay Moustapha ما كان في خدر مجولا لمن كبير ما كان خمول درجة مصطفى أكن بأنصار النبي محمد نانا كاوتي في نيال نجيغا خمنا نيوي وأنصار أستن وأكن بالمدينة غيلا نانا نيوم دي أي جاين دي إيه، جميع الأنبياء مزيلا لولم baadul asaafili nee na mbañeeg ñu suufe ñii lam yu naqis fadlahum lam yu naqis du du wàññi fadlahum seen ngëneel ah. balli fi nekk zaadoom daf leen di dolli orientel ma sa direction ma seeti borom 40 ans 6 mois 15 jours zéro fët ku sopp Alaaji Abdoul Aziz yëkkatil sa loxo ñu màggal ko lu Alaaji Abdoul Aziz wax خنا صبي الله عبد العزيز في نيكول اكريم بي كاوتيف من سير الحمول نانا موي سانغ بغا خمنا يا نونا على البرايا هذا البرايا تشونو من ديفي والد البتول موي واجرو فاطمه اكريم بي كاوتيف من شافع المستشفى موم لاي رامبو موم لا نو رامبو لو عند السيدان الاولي بونو ديمي بتيت مصطفى لي رامبو يوم الفلاي سونو ديمي بتيت مصطفى لي رامبو كاوتيف اكريم بي كوتير شق من مشوق من أولي تعجب أفعل لتبديل وأبلس أسقبي وما بي إلى تعجب وصل لما بي إلى تبديل سل وأفعل تبديل سل أبدا تقديرا أو لفظا بمن إن جرد أكرم بي أكرم بي كوتير أكرم بي كوتير من ماجد من ماجد أجي تبديل سيري كل راكب وساجد كيف سجود ولا غيركم ولا أكرم من إله يرحمه نانا موي سانغ بيغا خامني بونو يرمي تي بركه مصطفى لا يرحم بمن الهنا يرحمنا اكرم بمن بجاهه لنا المنى بجاهه تي بركه مصطفى نيلنا تشالونو امي منى سموي مبيت اكرم بمن شجره الاشجار كيغا خامني دا كيغا خامني سجوتل نكو غرب يي لاجلي وغاره الانار ايه دما بغي نك ني سيتي دومو ياي روكاي نياي borom bone kaare baat sàqare yàlla bi ana soppay Serigne Babacar lu sëriñ Babacar wax. lillahi samsun madat fil ardi taariatan. ma ne xanaa abraar soppay Serigne Babar Babacar dañ fee newul jóg taxaw ñu màggal ko. ku sopp Serigne Babacar si jógal taxaw lillahi samsun madat. lillahi. Shamsun badat lu Serigne Babacar wax lillahi lillahi shamsun badat fil ardi taliatan Serigne Abdoul Aziz samaam Serigne Babacar def ne lillahi shamsun badat lillahi lillahi shamsun badat kenn du Serigne Babacar ñëpp ni ni ci ndar ndar bi lillahi shamsun badat ma ne kenn du Serigne Babacar si aar xam nga naa ne kooko dendaleel euh, ma foofu ma ñëw dafa am mbooloo moo tax kenn du sa maam sëñ dafa am mbooloo mu koy ziyaar si samam ne lillahi samsul barat ñu ne ñun de aka neexoon suñu demee ci Serigne Babacar kenn ku nekk mu jaar ci sa tur lillahi samsul barat xam nga bëri na taalibe yu xër yuy ñëw di seet si Serigne te foog ne Serigne ba xamu leen lillahi samsul waaye Serigne yooyu nañ ci génnee sa maam Serigne Babacar si bokku ca sa samsun ah? malak ah, moom xam naa ne mu waaw nee na addiye sëñ Babacar Si lillahi mu ne ak a neexoon suñuy siyaare sëñ Babacar mu jaar ñun ñëpp suñu tur lillahi samsun malak ba nu ñëwee ba toog mu ne aha aha aha moom sëriñ Babacar lillahi samsun malak ne mbooloo mii nga xam ne góor gi Malick Ñang mii moo ci mag lillaay samsu balat mu joxoñ benn jigéen bu boot doomam ne liir bële mi ngi tudd njoogu gay lillaay samsu balat waa ma ne kuy tudd ba tudd liir ba nu boot doo moroomu gaañi lillaay samsu balat mu ne góor gi Malick Ñang ba ci liir bee ñu boot muy njoogu gay ci diggante bi amul dara lu ma ci ump gis nga Alaaji Mansour ba mu demee Màkka mu ñëw Sëriñ Babacar daf ne fii ba màkk puso sax bu waddee ma yëg ko man Cheikh Al Khalifa lillaay lillaay samsun badat dafa ne fii ba màkka puso bu rotee ma yëg ko man Serigne Babacar lillaay samsun badat mënu leen am seen dara baax lu dul ngeen jaar ci man wiiri wiiri jaari ndaari te man maay ndaari man Babacar Sy bëgg Serigne Babacar Sy maali lillaay samsun badat ku sopp doomu yaay roqee njaay ji jógal taxaw ñu màggal Cheikh Al Khalifa kenn du moom loo tee lillahi samsul barad lillahi ñeel na yàlla samsun nee na yonent bi jant la badat boo xam ne feeñ na fil ardi taaliatan yonent bi jant la buy dox ci suuf fawqa rimaani di dox ci suuf di sam ussamsi baydaa waaw nee na asamaan si mooy suuf la taxri ilaya wuxuusul xidiraabi xatta nee na ñëpp di daw di jëm ci moom ci gott ba ca àll ba taxfil xitaaba fama bisayri ifsa waaw nëbbatuwul da loo teg fasamu sayrun waaw waan xaw sil majaari la waaw maxaaritil qurbi bal madxaa u la laaw loo teg yati maxatukumu yati maxatukumu yati maxat rasulin fi lanwa leer yaa nga ca moom loo teg yati amiru ladina laaw maa barazat bu dul woon ak moom maa barazat du feeñ samsun samsun jant wala xamaru nee na weer du feeñ xadraama abraaw suuf ak asamaan dara du am yelumi ladina laaw maa waaw wal ummi yi mooy yonent bi nga xam ne law laa umaa nazalat bu dul woon ak moom dara du wàcc aayun aaya alxuraan hadiisun hadiis du wàcc faakat te dunu bind wa imla dicté du am sirru sarira mooy secret secret nuurul xalq mooy leeru mi ndef iduhu moo leen di jiite xayru xiyaari mooy tànneef bi Quraysh Quraysh la bokk mooy sang ba nee na moo moo koomal mboolem mbindeef yi moo dëgg déggal mu ne min talli diimati waxul ne xam nga la mooy tall teppi teppi tawam yi maanaam tuuti tuuti mayam yi ci la yonent bi defaree àdduna kon fa kay fa diimatu fa kay fa sëñ Babacar di poser question fa kay fa diimatu nee na kon bu yonent bi tawoon waame taala fu nu jëm ah? mu ne tepp teppam yi ci la defaree àdduna mu ne kon bu taw ak waame la nu jëm Serigne Babacar ne tepp tepp dong la nu am ci moom lan la wax moom seexal Al Khalifa inkaara jëxlu bu wa nakdum fi zamaani إن كان جهد جهد إن كان أها ونكد أها في الزمان بدا أها جود أها وتود لا فالكف والكفاء شتت مي واخ بوبو غراو نا دي ديلو واتال إن كان جهد ونكد في الزمان بدا نانا بو فكيه ني بكور دا فام ولا ونكد نك بو موي تيس fi zamaani badaa fi te jàpp naa ne ñëpp am problème nag kuy dugg kuy dox ci àdduna am nga problème yàlla yàlla faj yëpp nag. Jawdo na bu fekkee ne danoo am problème dalal leen seen xel xam ne jawdun yonent bee nii tawal defal mu ay xéewalu àdduna ak alaaxira mooy taw bu nuy jox alal. taw dun taw euh, euh, montagne bu dëgër la. nee na loxo ba day dotti rek di joxe ay may. yaa safwatal wasfi. yow mi nga xam ne safwatal wasfi yaa gën a sell ñu sell ñi yow Seydina Muhammad. wal mawsuufi saadalo. wal mawsuufu. saada la oo yaay sang bi toog ci ñëpp yow Seydina Mohamed. yaati ma am si man tan mu aliyaaw. nee na ko yow mi nga xam ne tan mu yéeg nga aliyaaw ak kawe yow daal yaa gën a kawe ñëpp ci say maam baay ak lu mën a doon. dammal karimu la usman. dammal karima isman. dammal karimu la usman lil karimi la. karimul asli. ni'mal karimu karimul asli mi'taaw. damma. dammal karim. wax bu garaw la motax kenn du yonent bi damal karim mo ñëw ci xilaas xam nga damal karim li ci seigne babakar wax moy yàlla mo jël turum xotti ci def ci turu sayyiduna Muhammad ah parce que yàlla mooy Mahmoud yonent bi di Mouhamad. Zul Arsi Mahmoud. waaw xam nga xam nga lan lay tolloo. suqalu min ismihi. suqalu min ismihi li jëlaw. fa Zul Arsi. fa Zul Arsi Mahmoud waala Mouhamad. jeex na moom moo kal jàmbaar lan de ñii gars yi abdu yi ñoo gën a garaaw sax abdu ñii laa ilaha illallah. boyu yu ngi ku jangul ba ak ñom da nga wat ma la ko wax de waaw loo day am waaw lu mu wadal ngeen lolo tax lolo tax ngeen garaaw ndax Abdou du waddal yenn misil te yeen misil ngeen di wadal nit kenn lu wadal nga for fofu lu musiba de na am du am na lu ko mën a wàcc moo tax yu bari da koy rëcc yu bëri mën na ko rëcc moo tax léegi day maîtriser boppam mais yéen bu dara rëccee ab du ngeen ne ngeen capté ko liggéeyaat ko loolu leen tax a garaaw abib xam nga ni ñu xamee yonent bi kenn xameewu Maodo rek moo dem ci neegu yonent bi dugg ci armoire bi kala ga mi sol sax neena xamna يلبس في العدين مرقيا من قلب افتئم بيضا سوداء صفراء يلابسها لكنما الاكثر بيضاء في غمم اعل اثبتها دار الاسابي قل اجلها فالزراع دون ما غمم nee na bu bu bu solee sax kaala gi Cheikh Talla nee na lay wadd sax ci kaala gi ci ginnaaw nee na compté naa ñaata mètre la lal bi mu doon tëdd sax kan moo ko ko may ban menuisier moo ko daaj sax nee na xam naa ko le au sanira xad ixda as ab dubnu zurarati yanaamu ilayhi xalbu lam yanami sallaw ala zaka sarira ridan kama bi i rafau siddiqa fil xumami wa hakaza umru wa naasu ba'duhum tabarrukan daawalu fiihim li maytihim nii xam nga lu ci gën a garaaw mooy lal bi ci suuf amoon na benn benn benn benn coffre-fort bu carré bu ca newoon Maodo nee na xam naa lan moo ca newoon mishtan shiwaakan mir'atan maqulatan adib laa tansa fii ta'daadi bil jalami dafa yéeme dafa yéeme booy xool xilaas di ko xool di nga xam ne dawandoolul ak kenn taala taala wuyu rek mettiwul de wuyu ko rek taala wuyu rek ku la naa naa ne mënoo yàgg sax si mbooloo ci mbooloo waaye nag waaw waaw mission mission ak ah, sëñ Abdou de al boo xoolee ci moom de ah waaw ah, ah, waaw boo xoolee foofu rek mission la ndeysaan ndeysaan loo bada taala toogal rek dafa sonn waaye dama ne ko xoolal ci Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin mu ne ma man de boo waxee moom dafa bëgg sa ñaxtu loolu la yàlla def alaaji soo say maamam waaye sëñ Abdou mooy sëriñam fu ne sañ na ko loolu kañ ku ne sañ na ko mi ngi mel ni man rek ni ma deewee ci sëriñ Babacar rek te xaw ma lan la man dama ko bëgg sama xam raison bi ku ne sañ na ko moom noonu la mel moo tax dem na ko xoolal ci sëñ Abdoul Aziz Al Amin mu ne ma kon naa xam naa ni fim mu ne sonn na waaye nag toogaay bii ndam rek la lay jël ab ba muy toogaay bii mënatu ko waaye sañatu ko ndax li muy liggéeyal yonent bi gàmm moo mel loo badaa feeñ nga ci yonent bi maadilatun maandu fibtidaa il amri ci tàmbali mbiram gis nga àdduna ku maanduwul bàyyi ko maandu rek moo am solo waaw waaw Seydaaji Malick nee dafa juddu rek maandu lan moo tax mu ne lu oo badaa fibtidaa il amri maadilatun badaa في ابتداء الامر لم يكن وبدت في ردائه معجزات ليس فيها عن العيون قفاء اسابت ابت ليدمه مرضعات قلن ما في يتيم الان آه، غناء فاتته فتاه من ال سعد فتاه قد ابتها لفقرها ردعاء اردعته لبانها وشقت وبنيها الباء شاء اخصب العيش عندها بعد ما مأل إذ غدا لنبي من الغذاء يا لا من آمنة لقد ضعف الأجر عليها من جنسها والجزاء وإذا سقر الإناث أناس لسعيد فإنهم شعداء حبة أنبتت سنابل والعصف لديه تشريف ضعفاء ها؟ كم ديون انت وبدت فينا في ردائه بنكوي نمبل معجزات كوكونا مجاز لواي إرهاس لا دا قبل النبوة لا موتاخ لي ماو دوخون هو قبل ولادتي معجزات إرهاس لا بس قبل النبوة لا واي مجاز موكو كو ماي ماو دودي غارب كين دو ليسان ديغلو Uh-huh. ndeysaan loo oo xam la wilaadati yal na yàlla guddal sa fan mucjizaatun mucjizaat boobu irxaas la moo tax da ngay dégg nit naan sama sëriñ dafa doon def mucjiza mucjiza yónnante koy def walla yu karaama lay def moo tax koo dégg mu ne sama sëriñ dafa def mucjiza rek jàngul bu fekkee ne jotagul nubuwa irxaas la bu demee nag ba nga xam ne Moustapha am na 40 ans foofu lay duggee ci mujiza Maodo ne lu oo qabla al wilaadati mujizaatu nga ne waa Maodo lan moo tax muy def mujizaat ñu ne la demal jàngi bayaan majaas la jël mujiza ba mën ca euh, nammu irxaas nga ne waaw ndax loolu miin nañ ko ci wuyu arab ñu ne aha kañ bu sheyri ci boppam moo ne wa badat fii radaihi mujizaatun kon bu Maodo juumee bu seyri juum te du juum parce que xam-xam bi bëri dafa mën a jàngale dégg nga loolu cheikhul dalilu ila dégg nga loolu Idrissa jërëjëf jërëjëf Idrissa yàlla yàlla barkeel ndeysaan dëgg loolu xalifatu cheikhina najatu sabani ma sabani ma sabani wallahi sabani لا مريد بنيه شيخ ولا يفريد للأسري من جميع زماني زماني ما زماني ما زماني سمام بين زماني ما زماني ما زماني وأبشر يا مريد بغير شيخ بريد العسر من جنبي زماني زماني يما زماني يما زماني زماني يما زماني يما فأبشر Serigne Babacar Sy mooy wax ak yéen ne kontaan leen ñu ne ko si lan la ñuy kontaan mi ne bi nay li cheikhin am ngeen Serigne ah ñu ne sëriñ ban mu ne faridul asri un bu amul deux mooy mawlo ñu ne ko lan moo tax mu ne kado la bu leen yàlla jox yàllaa leen baaxe alaaji malik waaye amu leen maxaama am ku mel ni Maodo waaw nit mënul baax ba am ku mel ni Cheikh Sidil Hadji malik mënul ne yàllaa lay baaxe nga am ku mel ni Maodo وأعمالك للورى ولملا وأعمالك للورى هو الأجمال قسام القيم وأعمالك للورى ولملا وحمالك للورى ولملا وحمالك للورى هو الحج مالك سامي dégg loolu walim laa alaaji Mansour moo ko wax walim laa Abdou jëlal micro bi loo wax walim laa yaa ko wax de ku sopp Seydi Aji Malick yëkkatil sa loxo ñu màggal ko lu alaaji Mansour wax Abdou درياتي لنا مثله الدهر waaye ñaari sukkoon duñu laal ñaari sukkoon duñu laale mi ngi mel ni nga ne l'école deux voyelles ne se moo tax nga def apostrophe bi hël dëru mu def hëli kusira sukkooni laami li taqallus min ittiqaa isaakini bi hëli dëru maa ngi posé question man maam Mansour maa ngi naan ndax jamono mën ku mel ni Cheikh Seydi Hadji Malick huwa al fardu un la bu ku mel ni moom amul fenn moom Cheikh Seydi Hadji fa cheikh mu rabbi fa cheikh mu rabbi moo ma mu raqi moo mu dar mu dar mu darri mu darri sax kulla ulumi xam-xam yëpp lay jàll shahirun adi séw la àllam boo xam ne Maodo la imaamun imaamun mooy njiit la ci Maodo يقتدى للهدى يقتدى جلبي الريال للهدى كبك نجب الريال موضة ركن الأنام الذي من هدى ركن الأنام nee na kenn min dee fi nga xam ne mën a dem du daanu mooy sëriñ moom moom mooy Cheikh Sidi Hadji Malick yaa man yaruma shifa yaa man yaruma shifa ashaqam yow mi nga xam ne dangaa bëgg a faj sa feebar وعليا من اللؤلؤ منكر waaliyan wala ngeen bëgg caqaayu jamaa boo leen takk mën naa leen ko jox mooy alaaji Malick mooy takku شيخي ويدا وسل واو خبرني ثم قل يا يروم شفاء الشقم وهليا من اللؤلؤ المنتظم بأخبار شيخي رويدا وصل خبيرا ثم قل لي نعم فشيقي مربي مرقي مدرس كل علوم شعر العالم إمام إمام مجيب أها dama ko doon kii tuuti beneen affaire la am du beneen affaire la gis nga buy woy gis xasida bi li ma ci jeex li ma ci neex dafa tibbee ci digg digg bi muskilaatu waaye wasalaamaaleykum wa rahmatullah tabaarakalaat di ci jiital nag maam Omar Ndiaye ak magam ju tedd ja fa tabaarakallaa sëñ Xalifa Ndiaye nga xam ne gàmmu gi heure bu yegsee lépp lu ñu bëgg ci télévision bi dañ koy def dañ ñu koy defal gratuitement duñ ci fay dërëm wallahi lazim publication yi ñuy defal yépp duñ ci fay dara fi mu nekk nii sëñ xalifa njaay yabal na fi soxnaam mu ngi nii toog seen bu baax soxna si ñu lay ziar bu baax a baax a baax fa tabaarakallah maam Omar ñëw na ba fii ci kër gi ci guddi gi saafoonteeg ñun waxtaan ak ñun yeeweeku dem kon lii cofeel la boo xam ne ni dañ ko am ci kër gi te bokk ci kër gi te lépp nag. ah soxna Maguette Badiane mais fa tabaarakallaa nga xam ne dafa yoroo riceer góor gi jël ko yóbbu jox ko suñu yaay soxna Xadi Si mu yar ko mu teete ñoon xalifa ak ñoon maam Omar moo waral lii nga xam ne heure bu amee fa tabaarakallaa lépp daf ñu koy defal gratuitement ñu ngi leen di gërëm di sant di leen sant bu baax di sant aussi Madialic production Tivaouane 7 TV sëñ Babacar Ngom nga xamne koku mom suñu télé bop la ndax lepp lu ñuy def moo koy couvrir annonce bi ñu def sax ci euh, asfiya yi mom ci bopam moko def ñu ngi koy gërëm bu baax diko sante fa tabarakallah di gërëm bu baax Cheikh tall momit ci annonce bi ñu def wa ñom wa collectif Tidiane des Parcelles asmi et environ def ko ngir gamu bi fa tabarakallah di gërëm bu baax Babacar ñang ma nga xamne ca Makka la tollu fa tabarakallah momit def annonce bo xamne àdduna bi yëpp a ngi koy seetaan di ko rafetlu ñu ngi leen di jaajëfal bu baax xanaa ñu jox sëriñ mu ñaan ñu teg mbokk yi waxtu yi jege na ba noppi li ñuy ñaan rek mooy beneen yoon ñu bàyyi xel sëriñ bi bu desee fanweeri minute ba ñaar fukki minute ñu jox ko message bi mu war a jàllale mu jàllale ko ak mu jot bu ñëwee dañuy dem ba toll ci ñaan jox ko mu ñaan loolu it maa ngi ñaan ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax insha allahu taala am na ci solo ko defee ci ndigalu sëñ bi rek ñu jottali kàddu yi mu wax sëriñ bi ne ñu bokk jàng ñun ñëpp fa toftal ci juróom ñetti li ilaafi xurayshin te jee ko salaatul faatixi nu bokk def ko hadiya ci yonent bi sallallahu alayhi di ñaan suñu baay xalifa bajaan yal na yàlla yokk leeram yal na yàlla yokk leeru Cheikh Sidi Aboubacar Sy fa tabaraka allahu ñu jotal yool wi it Cheikh Sidi Xaaji Malick ak mboolem njabootam ak mboolem jullit yi jiitu ñaan gi nag ñu dugal aajo yépp ci biir bismillah